le sénégalais euh, les forces de la société civile nous pour l'aide Karim euh, euh, le gouvernement du président Macky Sall mu fixé les élections locales locale yi war a nekk du l'élection rek doo ay élection de nous nous ban exiger pour que élection élections am avant la fin mars 2021 le CRS sert de réflexion et stratégie de la FNCL du Parti démocratique sénégalais Mingi le peuple malien de sa bravoure de sa volonté de prendre en charge son avenir de pour ne peuple malien bi cercle de réflexion stratégique nene na mi ngi leen di féliciter ci job ci seen taxawaay pour mën a ne sunu réew nii lay doxe te imposer doxin woowu ñu ngi aussi peuple sénégalais mu mel euh, cadre sénégalais ñu mel noonu force politique et civile du Sénégal ñu mel noonu pour que l'Union ñuy wax euh, coup d'état constitutionnel Buhari bu nigeria wax na ko président Guinée-Bissau wax na ko président wu Niger wax na ko nee na troisième mandat coup d'état la jël ay armes ñëw wala dindi ab président coup d'état la waaye def troisième mandat coup d'état la ñu ngi ñaan peuple sénégalais les cadres sénégalais la la société civile ñëpp jóg pour fexe ba coup d'état constitutionnel buy troisième mandat bañ am ci Sénégal jàngeen jëf.